salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi suivre Galaxy TV di ziar aussi tamit mbokku artisan yi comme niñ leen ko waxee woon nag tey ñu ñëw seen premier numéro li ci biir artisanat li ci biir artisanat nag eh, bu ñu ko waxee nag ñu ne duñ ñëw fenn fudul fii ci village artisanal bi fi nga xam te ne fii la artisan yi moom toog nag ci buntu galerie bi ah fi lañ defee palato bi toog ak sunu ay naataangoo yi toog ak sunu kilifa monsieur Chène Badiane ku ci mel ni Ndiaga sunu consultant ak sunu directeur. léegi ma bàyyi leen rek ñu nuyu ak mbokku téléspectateurs yi leen di seetaan rek incha allahu rabbi njëgam bàyyi leen nuyu mbokki artisan département de Rufis man la Ndiaga kan artisan nekk si village artisanal bi di secrétaire général bu association Adavar bu nekk si village bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. asalaamualeykum waa mbokki département de Rufisque ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu waa mbokki Galaxy TV di wax na man la monsieur Mamadou Sène secretaire général de lanten de la chambre de métier du département de Rufisque ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen sargal. waa asalaamaaleykum waa Galaxy TV maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak waaw du nuyu sama naataango yi nga xam te ñoom laa bokkal plateau bi ku mel na Badiane maa ngi lay nuyu. doyen Sène maa ngi lay nuyu maam Sougou maa ngi lay nuyu du rafetlu franchement initiative bi nga am ba indi waa Galaxy TV fii nii ci village artisanal bu Rufisque bi njaga maa ngi lay nuyu du la jox sa waay waaw man nag sama tur maa ngi tudd Maguette fal nekk chef de centre village artisanal bu Rufisque bi waaw ma yemale foofu kàddu yi ba ci ba ci kanam tuuti incha allah. macha allah salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki département Tëngéej ak li ko wax maa ngi amaat fierté amaat mbégte jàkkarloog yéen ci chaîne bi nga xamante ne moo di Galaxy TV ma ànd ak kan macha allah tey ma doon invité fii nga xamante ne moo di chambre de métier bu département Tëngéej ma fekk se sama nawle sama naataango maam sugu mu yor émission bi nga xamante ne moo di li ci biir artisanal man maa ngi tudd Fatou Sarr madame Dieng ñëpp xam ma ci bàjjen ci askan bi. macha allah femme artisante tay motax ma toogee fi nga xamantene modi village artisanal ma am mbégte nak bokk ak plateau bi ki nga xamantene suñu secrétaire général modi tonton Sène ma koy bu baax a baax a di suñu chef de centre modi Maguette di content, ci ki nga xamantene modi muy consultant ci ki nga xamantene président mamsugu président Adava jiite ñu képp ko xamantene ne rek yaangi yéwo fi ci village artisanal di nuyu peu artisan bu nek ci département bi di nuyu présente diari. Mary moom mi nga xamante ne moo jiite chambre de métier waa di leen waxaat rek am mbégte am fierté jàkkaarloog yéen ci li nga xamante ne rek li ci biir artisanat bu ci kanamee tuuti ñu daal di décortiquer li nga xamante ne moom lañ leen indil merci beaucoup. macha allah loolu am na solo bàjjen gusu bi am na solo di jaajëfal euh, monsieur Sène Maguette sama consultant ñu ciy am mbégte ak contentement bu baax a baax a baax a baax ci euh, bokkandoo ak yéen ni plateau bi ak seen disponible disponibilité aussi ginnaaw loolu nag ci mel ni sunu jëwrin sunu kilifa di monsieur Chène ñu bëgg waxtaan ak moom tuuti ci village artisanal bi parce que ñun artisan département bi yàgg nañu dégg village artisanal te ñu bari dañ koy dégg xamuñu aussi tam fan la village artisanal nekk tey ñu bëgg mu xamal ñu lan mooy village artisanal village bi kañ lañ ko taxawal ban année lañ ko taxawal ñun ñoo fi jotoon jaar ak ñooñu ñu bàyyi monsieur Sène jox ko kàddu gi mu leeral ñu ci tuuti rek. Euh, maa ngi dellu di sant yàlla bu baax a baax a baax. ci loolu nga xamante ne moom lañ ma posé comme question euh, mu nekk lu ma neex trop ndax it en fait euh, am na tuuti lu ma ci am ci xam-xam ak njàngat ak fekkee aussi euh, di wax ne le village artisanal de Rufisque bi ñu koy créer ñu ngi ko créer le 2 décembre 1969 après le festival des arts nègres en 66 nous ko créé Nous ko créé nak, ay magu artisan la ñu woon yoo dañu nekkoon ci coopérative bu ñuy wax coopérative bokk des bijoutiers de Rufisque donc El Hadj Maguette Thiam jiite leen woon bijoutier bu mag ci biir Tëngéej donc moo njëkk a nekk président village artisanal bi moom bi mu defee mandam ba jeexal ku ñuy wax tonton El Hadj moom moo toftalu ci moom it fa tubaarakallaaw mu marqué empreinte ci jamono yi mu ko yoree ba mu soo jógee it ku ñuy wax macha allah Mohamed Doudou André Ndiaye je peut dire que ne si reñam si le artisanat am benn benn <clears throat> benn gisin bu bees ak doxalin bu bees donc moom it mu def fi temps boo xamante ne vraiment temps bu remarquable la ci tempsam ñuy ñu koy ñaanal yàlla subhaanahu wa moom ak ñi ma ñaar ñi ma një njëkk a tudd ñëpp ñoom ñëpp jiitu nañ yàlla atte leen ci yërmandeem ak baaxam. amiin waaw di wax ne ci topp ñu koy wax mon ami et frère Cheikh Ahmed Tidiane Thiam man ak moom ñoo cheminé woon ensemble yoroon ko ba bi ñu suñu mandat jeexee aussi tamit si la ñu fal euh, madame Sall ne jaari ñax mu nekk cinquième présidentu antenne chambre de métier bu Rufisque donc nag mu nek <clears throat> village artisanal bi c'est un titre foncier de l'État du Sénégal alloué au ministère en charge de l'artisanat pour les besoins des artisans donc mu nek lo xamantene keuruk kërug artisan lañ département de Rufisque donc mu nek nak espace en fait je peux dire que les 120 corps de métier plus que ça 120 corps de métier parce que dépassé na fofu légui dem na ba ci 150 corps de métier kenn ku fi nek, si beaucoup ci corporation yoyu am nga fi si elles remplir remplir conditions yi permettent permettre nga accéder fi soko ko fait fi meuna am ont tout sa ñaq donc ñuy rafetlu aussi tamit en fait le nouveau chef de centre bi nga xamantene mom lañu fa affecté donc bi mu ñëwé wax dëgg yalla mu ngi def ben démarche bu participative ci walu wi nga xamantene mom lañ ko denk donc lolu dafa am solo parce que partager information dana permettre à ce que li nga xamantene mom lañ la jox comme responsabilité en fait mu oyof ci yow té lolu mom lañu gis donc ñuy wax né nak ah village artisanal bu Tëngéej bii donc corps de métier yi nga xamante ne moo fi nekk gum mën naa wax ne ñetti section yëpp boo ko doon seet ñu ngi ci biir plateau bi bu ñu waxee ñetti section nag section production la section service ak section aar macha allah ji fi nga dugg ci côté section yooyu dinañ ci ñëwaat tuuti. merci beaucoup ma ñëw tey suur sama consultant ci li nga xamante ne yaa ngi déglu côté section yooyu mu dugg te lan nga am te loo mën a kii ceeg moom ci foofu. li ma mën a am li ma li ma bëgg a laaj tuuti rek monsieur Sène sa biir wax boo da nga ni boo remplir conditions yi tax nga war fi nekk. war nga fi mën a nekk mais yan conditions nga war a remplir pour nekk fii si village bi. merci monsieur Matar condition yoyou en fait le chef de centre est là tungu ne du teew ñuy natal donc lolu question bobu mom moma ci gëna euh am prérogative pour tontu la ci lolu donc moom en tant que chef de centre je crois que buñu ñu ci mom dina wax Euh, conditions yi nga xamante ne moom nga war a remplir pour mën a yegg si fii ci biir plateau bi macha allah ñuy rafetlu orientation boobu am na solo kon ginnaaw si loolu dañuy jox chef de centre moom tamit ñu ñëw am ay question yu ndaw yi nga xamante ni euh, bëgg nañ ko ko dugal waxtaane ak moom en tant que chef de centre tey ñu affecté la indi la Tëngéej mm-hmm. nga ñëw ci village bi mm-hmm. Mm-hmm. tey bi nga dugg see ci village bi am na loo xam te ne kenn du la ko wax mais da bàyyi nag bàjjen Mm-hmm. mi nga xamante ne mooy sunu artisante bi en même temps nekk présentatrice. Mm-hmm. dugg ak yow ci côté boobu. incha allah. macha allah président moom Mansour comme ni nga ko waxee rek bay si say om ndax saa su nekk rek dañu wax ne mag ñi dañu naan potu ndaa ca ndaa la seta ca basang macha allah kon ñu ànd ak ki nga xamante ne moo di chef de centre mu di Maguette yàlla indi ko fii ci département Tëngéej ñu am fierté ndax olof Ndiaye dafay wax ne lu ne fàng kenn du ko jeex te saa yu ñu sa yëgsee rek macha allah defe naa ba nga yëgsee xel yi dal na comme ni ko suñu doyen seen waxee tey. Euh, tay suñu consultant dafa wax wax bu am solo tay ñu gis xar-xaru kanamu village département Tëngéej parce que tay département bi yëpp xàmmeewuñu kan moy artisan ak kan modul artisan tay premier des choses tay pour ñu le kan moy artisan ban marque la wara yor waaw Badiane ma ngi rafetlu question bi nga xamanteni tay mom nga poser waaw avant toute chose nak luñ nane xel ñu ngi nuyu waa chambre de métier bu Dakar mhm. waa chambre de métier bu Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mhm. en l'occurrence ki nga xamante ni moo fay njiit mooy le président Maguette Mbow ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen yéeguwaay mhm. di nuyu tamit le secrétaire général de la chambre des métiers mu tudd Ousseynou sekk Seck waaw ñu koy woowee Seck en général Seck la ñuy ëpp sax lu ñu koy wax waa du nuyu wax chambre des métiers yëpp waaw ku lim rek da ngay juum quoi bàyyiwuma kenn ci waa chambre des métiers waaw Badiane par rapport ak question bi nga xamante ni tey moom nga posé li jëm ci côté. kan mooy artisan kan mooy artisan. Mhm. artisan ñu nan la ñuy ràññee ne kii artisan. waaw kan mooy artisan. Mhm. artisan mooy ki nga xamante ne tey lépp looy def danga nga koy def par rapport ak say ñaari loxo. Mhm. loolu la ñuy ràññeetlee artisan liggéey booy mënta def da nga koy def à travers ci say ñaari loxo te artisan à chaque fois ñu ngi koy ràññeetlee à chaque fois. ñun dafa amoon benn liggéey boo xam ne à chaque fois moom lañ doon def parce que am na ñuy taxaw ñu mbubboo ay artisan te or ko du ñu ay artisan mhm. à chaque fois ñun dañoo amoon benn euh, habitude boo xamante ni nit ki pour ñu xam na artisan nga dañuy dem ba sa place mhm. def visite des lieux mhm. maanaam visite de conformité à chaque fois bu ñu ba sur place dinañ xam ne carrément yow artisan nga wala doo artisan parce que artisan luñ ko lu ko doyen seen waxee parce que lépp dañu leen regrouper à travers ci section yi dafa am section production section art ak section service lépp rek ça dépend ci profession bi nga xam tay ni moom ngay def tay boo waxee profession tailleur ah. automatiquement dañuy xam yow ci ban section nga bokk dans ce cas dañuy xam yow section production nga léegi nag boo ñëwee na coiffure mhm. coiffure automatiquement dinañ xam tam ci ban section nga bokk dañ koy yóbbu ci section service léegi nag peintre d'art boo ñëwee wax ko dinañ xam ni carrément ban section nga bokk automatiquement dinañ xam ne mais président foofu doguma la nga nekk da nga wax sa mhm. biiri wax nga ne mhm. tey bu ñuy xam ne kii artisan la dañ koy mhm. fekk ci place am mais ak réew mi ni mu tojee kenn ku nekk ni ko sama papa di doon waxee kàkkatar génnatul parce que nit ñi ñoo sopp ko tey nit yi am nañu fitu ne tey tailleur la abba atelier sol mbubum tailleur fekk duñu tailleur tey ban marque tay mm-hmm. en tant que yéen ñi nga xamante ne suñu njit ci chambre de métier mm-hmm. lan moy wane ne kii mm-hmm. artisan la ki artisan la wa moy li nga xamanteni mom la waxoon ci njëlbeen rek parce que chambre de métier parce que dañoo am ño xamanteni tay euh, ay commission yi créé commission de qualification dafa am ñoo xamante ne tey uniquement ñoom ñoo gérer ci affaire qualification yi tey ñi nga xamante ñoom ñoo ñëw au niveau de la chambre des métiers mm-hmm. pour wut ci ay carte mm-hmm. léegi nag bu ñu ñëw chambre des métiers wut ay carte dafa am ay demande yoo xam te moom lañ leen di demander mm-hmm. ay fiches yi ñu di demander premièrement pour carte professionnelle bi il faudra nga photocopier sa carte foofu laa bëgg nga delloo fa sa loxo parce que bu ñu nee nit sénégalais la defe naa ne président Sougou. tonton Sène defe naa ne carte d'identité moo tax ñuy wax ne kii kat sénégalais la kon message boobu dama bëgg nga gën ko appuyer en tant que chef de centre bi nga doon que ne tey artisan la artisan la yomb na mais tey lan mooy firnde ne artisan nga kon nga yox sa carte artisan moom mooy wane tey jii ne macha allah kat mhm. kii artisan la defe naa mhm. balaa émission bay jeex mhm. ñun artisan yi dinañ génn suñu carte wane ne kat ñun ñii métier bi nga xamante ne moom la ñuy woote defe naa ne dinañ ci gën a xuusaat président Mame Sougou ñu bàyyi la rek nga continuer li nga xamante ne macha allah mooy sa émission nga daal di posé waat li nga xam ne mooy question président Macky macha allah le directeur de centre ci kàddu yu am solo yi nga xamante ni euh, indi nga ko. Mm-hmm. leeral ko ci mm-hmm. artisan bi bi nga mm-hmm. xamante ni moom moo war a firndeel ni kii artisan la. ginnaaw bu loolu weesoo nag ñu ñëw wax yowaat tuuti. ci village artisanal bi. bi nga xam te ni suñu borom dafa dogal ñu indi la fi. bi nga ñëwee nga gis ni mel. tey yow. lan mooy sa mbébét. ak ban gis-gis nga am ak ban ambition nga am lan fan nga ñaan yàlla aussi tamit yeggale fa village. waaw sama mbébét mooy carrément par rapport ak village artisanal bi maanaam ñu ñun ñëpp artisan yi nga xam te ñoo nekk ci biir ndax li may faral di wax rek bien vrai que dañ ma fi affecté en tant que chef de centre mais damay faral di wax liggéey bi du chef de centre kese liggéey bi maanaam ñun ñëpp ñi nga xam te ni tey ñoo nekk ci biir plateau bi en tàmbale ci présidente bi nga xam te moo fa nekk mi présidente Diary Niang bi nga xamante ni tey artisan bi nekk ci suuf ñëpp maanaam ku ci nekk da cee war a dugal sa loxo parce que affaire bi du chef de waaw man nag sama mbébét par rapport ak li jëm ci côté village yi mooy carrément village bi maanaam ñu changé xar kanamu village yi ci biir tamit en même temps tamit jëm ci defaat tamit ay place yoo xamante ni tey artisans yi ñoom ñëpp ku ci nekk di nga ci mën a gis sa bopp tey de ce fait que tey touristes yi nga xamante ni tey bu ñu ñëwee tey ci biir village bi nga xamante ni tey du ñu soxla tamit des fois di dem ba Soumbédioune wala soit di dem feneen ak feneen di wut yenn produit automatiquement bu ñu duggee ci biir village bi man loolu moom mooy sama xeex loolu moom mooy sama euh, maanaam loolu moom mooy sama xeex par rapport ak ci biir village bi te gis naa ni carrément artisans yi même bëgg-bëgg bi ma am te moom la bëgg affaire bi daal loolu la man sama mbébét loolu la quoi pour à ce a xeex ba xamante lépp lu manqué woon ci biir village bi carrément mu am ci biir village bi waaw loolu daal moom mooy sama pur loolu mooy sama xeex quoi. waaw macha allah loolu am na solo ñu ne ñaanal yàlla bëgg-bëgg boobu ak yéen bi yàlla nag sunu borom uh, mottali. Mhm. parce que yaakaar naa ne loolu bu amee. Mhm. njëriñu artisan yëpp. Mhm. te nit amul lu dul kër. yaakaar naa ne sa kër bu jagee. daanaka li ci des yëpp ay complément rek lay doon. ginnaaw si loolu nag sànq. ñu dalaloon ku mel ni monsieur Chène mhm. mu amoon ay kàddu yu am solo yu mu yëkkati woon ñàkkul sama consultant mhm. am na fu mu bëgg a waxtaane moom après ñëw ci bàjjen waaw ah, monsieur Sène maa leen waaw man fu ma bëgg a ñëwaat mhm. mooy problème artisan yi artisan yi bon actuellement bon village bi bon ñaata case village bi moo fi am est-ce que village bi war na mel na ni mu war mel. wala euh ko. euh monsieur Kane may wax ne euh, village bi bien que sa position géographique position stratégique la mais malheureusement mais malheureusement li nga xamantene mo fi wara nek pour mu attrayant lolu amu fi donc lolu nak damay wax ne. barab lafa nekk di ñuul mooy ñag ba donc ñun ñi fi nekk mu néew mu bari ñun ñooy mën a tàmbali jéem développer village bi ba keneen ku ñëw fekk ñu si dynamique boobu mën a ànd ak ñun ci loolu donc loolu monsieur mooy li nga xamante ne moo mën a tax village bi repeupler ñun suñu jëmi bopp nous trouver autour de l'essentiel l'essentiel mooy ñu fóot suñuy xol nek benn wu say bokk benn bëgg-bëgg parce que fi la ëppal temps bi ñuy durer que suñu kër kon donc loolu su amé rek je crois que li ñu bëgg lépp ci village bi dinañ ko am incha allahu rabbi loolu nag damay wax né ñun ñoo ci njëkk ñun artisans yi nek ci biir plateau bi ñoo ci njëkk ba keneen bu ñëwee man ci man ci wàll si donc loolu loolu laa gis quoi. waaw macha allah jëwriñ seen ci kàddu yi tontu bi am na solo te leer na comme ni mu ko waxee nag ñun ñu nekk ci biir palaato bi ñun ñoo war a boole suñuy xol fóot suñuy xol ànd di yëkkateendoo di tegandoo yéeneente jàmm mu nekk loo xam te ne lu am solo la di ñaanal aussi tamit sunu kilifa yi nga xamante ne ñoom la sunu borom dogal jiital leen ci sunu kanam mm-hmm. sincèrement. ku wax yàlla rek xam ne liñ mën yëpp def nañ ko ñu ngi jéem mhm. ngir village bi dox ñu ngi jéem ngir village bi jëm kanam nit nag yéene rek nga am mais lay mottali yàlla la mais amaana bu ñu amee ngëm-ngëm rek mhm. sunu borom mën na dogal li fi indi li tey mën na indiwaat lu ne ginnaaw si loolu nag du ñu dem nag bàyyi jigéen ñi <laughs> waaw ku ci mel ni bàjjen bàjjen yow fi ma lay mbëgg njëkk laaj mooy lan moo indi turu bàjjen waaw macha allah président moom sugu soo ma laajee li indi turu bàjjen damay am fierté wax ko ndax àdduna dañu ne sas bi la suñu borom di sas moom rek moo la koy jox macha allah te defe naa ne cër rek suñu borom moo koy cërale depuis tout petite laay dégg bàjjen parce que yàlla dafa def dama juddu rek gimmi am charisme ci xale muy gis xale doomu jàmbur surtout sang ko toppatoo ko éduquer ko yaayam ndax dañu yar éducation de base mu di yarul démb ndax bu jëkk doomu maam sugu doomu seen wala doomu màgget amul woon boobu doom yëpp benn doom la ñu woon peut-être jamono mooy dox nit yi di changé jikko ndax àdduna fa mu nekkoon defe naa di jaay ba tey jogu fa kon tey loolu moo indi turu bàjjen ba nga xamante ne ñi ma mat papa ñi ma mat ay kilifa it kanamu bàjjen parce que bu jëkk bàjjen moo daan baay ci kër lépp loo xamante ne yaay daf ko waroon taxaw bàjjen daf koy def ak ndijaay mais peut-être ak léegi jamono kenn ku nekk yaa ngi topp sa xol ni ko sama ndijaay waxee maam Abdou Aziz rabiyallahu taala anhu daan na wax na yàlla na yàlla fóot xol yi ndax lu tilim xola ma ko tilim lu baax it xola ko baaxal loolu moo indi tey turu bàjjen wi muy law may màgg ak moom macha allah tey ku mel ni njagam mii defe naa ne màggandoo nañ waaye lu bëri seq nañ ko parce que toujours dama doon dox ci non violence que ne ndaw dafay gëm boppam que ndaw dafa war a jaamu yàlla jàng école rek warul tax nga su ma jàngul du ma tekki su fii doxul rek da dox tey ku gis tey suñu consultant bi njaga tey mu doon tailleur boo xamante ne tailleur bu mag la macha allah tey président moom sugu loolu moo indi turu bàjjen muy dox di dox ba yàlla def ma nag li nga xamante ne ma di femme artisan d'abord ndax saa su nekk dama naan suma ma simmee sama mbuba présentatrice damay daal di femme artisante motax sa su nek si sama solin si sama doxine si sama waxine damay wat yaru demb ndax dañu ne nit ki soko ko yar sa jikko di ko jox da ngay am noy doxé kon lolu mo andi tay président mom sugu tourou bàjjeen waaw waaw mam sugu lolu waaw waaw macha tay fi nga ma woo dafa neex ma ñew fi ci Galaxy TV macha en tant que présentatrice ci benen télé ndax ñun tëngeej lañu am ñu ni neen la ñoo bokk benn maam guddi guddi tëngeej kon niñ koy waxe mo waral tay soma invité si émission li ci biir artisanal damay am mbégte ñëwaat waxtaan ak artisan yi waxtaan surtout ak jigen ñi parce que nak suma si mee bu ba présentatrice damay dem doon femme transformatrice mu doon lo xamantene ne local la wax. mam sugu man dama gëm président local ba local lay solo tey mbuba bii ma sol ndokk yàlla ni ko olof yi di waxee bi muy fii fii lañ ñu ko joxe woon fii ci foire bi nga xamante ne tey artisan yi organisé woon nañ ko fii ci chambre de métier ànd ak waa aiguille d'Afrique de passage ñu di leen nuyu mu doonoon loo xam ne réussite la tey sama yaay Binta Samba moo ma joxoon yére bii ma sol may kontaan ci moom bu baax a baax tey damay takk jaaru artisante damay musóoru musóoru artisante te ne fierté la parce que tamit dafa olof Njaay dafa ne nit ki ni ngay doxee noonu la lay gisee pour naw la tey taxawaay bi nga xamante ne tey boo duggee ci biir village bi néew nañ nag mu doon lu ma metti lool ndax tey booy war corps de métier yi tey benn jigéen kese nga gis ci village bi mu di soxna Ngoone jigéen ju man góor macha allah mu di batant waaye nag mu di tailleur styliste bu mag boo xamante ne foo ko natt rek mu nga fa kon tey président li may waxaat président Maguette di ko waxaat suñu tonton seen parce que moom mooy suñu kilifa moom mooy suñu doyen que ne ñun nañu appuyer waat jigéen ñi ci biir chambre de métier bi tey lii ñu ubbi nii tey muy këru artisan yi mu doon loo xamante ne tey fu produit yi nekk rek wax nañ ko mën a indi tey man dama ciy gën a appuyer xaraat si sama tànk tubéy parce que am nañ ci wàll muy coiffeuse yi tey boo xoolee corps de yi tey jigéen ñi ñu ngi ci pàcc yëpp président moom Sougou kon tey war nañoo mën a ñëwaat si suñu xar kanamu kër gi ndax dañu ne nit këram kon donc pour bañ a guddal pour bañ a monopoliser parole bi damay bàyyiwaat nga defaat autour ñu daal di xuusaat ci li nga xamante ne commençant daal yi ma sol artisan yi ñoom ñoo ko defar kon dañu ne looy woote rek da nga koy nuru moo tax saa su nekk damay doon femme artisante di ko doxee di ko solo di ko waxee ndax man sama kër consommons local di gëmloo nag que ne ñun bu fekkee ne dañu bëgg suñum réew dox li ñu sol ci yére yi comme ni nga ko sole tey sol ci yére yi comme ni ko doyen sole tey sol ci yére yi tey comme ni ko njaga sole waaye gi comme ni ñu koy waxee ndax lépp lu ñuy jëggaani bitim réew mi ngi fii ci suñum suñ ko gëmee tey jaar yi ma lañ ko ci biir village Tay tey lii ci sama artisan yi ñoo ko defar kon mu doon loo xamante c'est une fierté à Rufisque mais rawatina ci département Tëngéej waaye nag grâce à Galaxy TV mi nga xamante président Mansour moom moo la may li nga xamante li ci biir artisan kon macha ñu daal di dégluwaat rek ñu ci des daal di joxe di nga xamante ni moo di seen kàddu. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la macha allah mais foofu président doguma la Galaxy jox na la li nga moom yow parce que dañu ne nit ki soo koy jox jox ko la mu maîtriser tey. à part tey li nga doon présentateur danga nga doon artisan boo xamante ni ci aar ngay liggéey muy yax tey suñu ndijaay ji toog loolu moom mooy métier muy jël ay béjjin di ko décorer macha allah kon du gàttal foofu ngeen waxtaan ci su ko defee plateau bi gën a yaatu. Euh, jërëjëf euh, Libaas Libaas Wade Sougou tur boobu defe naa ne ku ko xam dëgg moo ko koy wax waaw ndax kiñ ko tuddee kilifa la ci biir Tëngéej macha allah waaw donc mu nekk euh, xale boo xamante ne si samay loxo la gimmee ndax biñ koy indi boobu tuut tànk la fa man ak grand frère de même père et de même mère c'est un ami sama promotionnaire de classe là moom man ak moom ñoo nekkandoo fi ci plateau bi mom mu daan ñëw ba yalla def euh mu am amour ci limay def ba ñew yalla def mu nekk samay loxo nekk nak ko xamantene vraiment ah, ku neex euh, euh bot la waaw parce que amna dal yaruna xereñ na aussi ndax nit dinañ la jàngal waaye nga jàngal sa bopp luñ la jàngalul te loolu la ñu gis ci moom donc lii muy muy def ni tey euh, nekk na lu bees si man donc loolu aussi tamit ma ko siy jaajëfal di wax ne <clears throat> effectivement euh, libaas artisanat moom dañu wax ne artisanat féminin dañ leen war a jàppale parce que dañu vulnérable jigéen ñi ñoo gën a vulnérable que góor ñi donc bu ñu wàllisee ñëw ci artisanat euh, rawatina les femmes transformatrices ak les coiffeuses ak restauratrices yi dañ leen war a taxawu jàppale leen ba nga xamante ne seen ci artisanat dana dépasser fi ñu toll ndax effectivement dañu wax ne artisan dafa nekk koo xamante ne dafa contribuer ci dundu doomu aadama ci commencement wam ba ci ba ci mujjam li tax je m'explique parce que yow mi nga xamante ne yow yaay être humain bi soo ganee àdduna la nga xamante ne mooy laxasaay bañ lay laxasay artisan moo ko def bu la yàlla dimbalee ba nga dëgër la ngay sol artisan moom moo ko defar bu la yàlla dimbalee tamit ba saw fon mat nga wàcc liggéey jaak bañ lay teg artisan moo ko defar kon dafa contribuer ci dundu doomu aadama ci commencement am ak ci mujjam ba pare contribuer ci dundu doomu aadama ci dëkkuwaayam ndax mason bi mooy tabax étape artisan là. ñu koy wax artisan de production ki nga xamante ne électricien bi nous participer ci tabax bi Mo waral électricité bi l'air geeg ya sa aju yëpp kooku ñu koy wax artisan de service bu paree ki ñuy wax artisan d'art moo ñëw yor décoration ou kër gi donc artisanat kenn mu mënul mucc ci moom ndax plateau bii ñu toog décor bi c'est de l'artisanat d'art fi nga xamante ne moom la ñu toog artisan de production la yére yi ñu sol kazalika moo wax ne kenn ku nekk ci ñun bu ñu dindi woon li artisan def ci yow ku nekk di nga dem làqatu wala doo neex a gis kon donc artisanat dafa nekk loo xamante ne dafa bokk ci dundu doomu aadama ma wax ne nag woggu or la xale yi nañu xam ne métier woggu or la saa yoo soxlaa xàppati si dem faj sa soxla looloo tax nag may lancer appel que xale yi aussi tamit ñu xirtal leen si métier waaye nag loolu mu ngi njëkke ci maître artisan yi parce que nit bu ñaw bu nawul sa euh, métier naw nawul sa jëfin du ñimee ñëw jàng si métier. loolu tax artisan yi rek mooy ñoom nañu jéem a rapproché wu ci village artisanal yi bu ñëwee ci village artisanal yi toutes les informations boo xamante ni soxla nañ ko par rapport ak li jëm ñoom ci seen côté kayit yi lépp loo xamante ni soxla nañ ko incha allah bu ñëwee fi ñun dinañ leen jox toutes les informations waaw parce que artisan li ñuy wax rek artisan dafa war a formaliser wu artisan dafa war a formaliser wu loolu moo tax ñoom il faut ñuy jéem a jege ci chambre des métiers yi. bu jegee chambre de métier yi ou bien itam ñu jege ci antenne départementale yi bu jege ci antenne départementale yi bépp information boo xam ne soxla nañ ci lu jëm ci wàllum formalisation incha allah ñun dina leen teg ci dinañ leen teg yoon quoi waaw. Mm-hmm. waaw macha allah am na solo joxal ma sama sama consultant micro bi nga gis ne def nañ tour waxtaan fi def ay kàddu yu ama ama ama am solo yow ci biir constat bi nga xam te ne moo posé ma bàyyi la yow fan ngay génn. jërëjëf président ñu ngi lay nuyuwaat. waaw vraiment def nañ tuur bi dégg nañ fii ay xalaat yu am solo génn na fi waaw mais man dafa am lu ma bëggoon laaj monsieur seen rek waaw yéen côté autorité yi lan ngeen di xaar si ñoom pour artisanal bi. waaw fa tubaarakallaaw euh, loolu en fait jaga euh, ñu ngi siy def ay jéego fa tubaarakallaaw ki nga xamante ne moom la fi yàlla teg muy euh, présidente euh, département bi muy madame Sall ci wàll wi muy doxee en tant que élu mu ngi ci bay wàllam donc ki nga xamante en tant que administré en l'occurrence monsieur Maguette Fall chef de centre wax dëgg yàlla lépp lu muy def dans le cadre ci li nga xamante moom lañ ko dénk ci administration bi man ak mom ñu ngi ci and ñu ngi ci dox dox bu mucc ayib nak mais comme on dit kenn ku ci nek da nga xam da nga wara xam lan moy ses prérogatives ci responsabilité yi ñu denk nak parce que lolu moy moy permettre à ce que kenn ku nek du dugg ci domaine kenn waye nak bu <clears throat> defar moñu taxajuk moy a que il faut que nous partagions information yi parce que comme nous ko maam Sougou wax nous avons ñun la fi donc nous avons war dégo dans un premier temps un établissement public à caractère professionnel donc kenn sañu fi dugg te jaaraw ci ñi nga xamantene ne ñoy kilifa gi donc autorité yi la wax na li ñuy def ci école yi di ko def ci hôpitaux yi dañ ko war a def ci village artisanaux parce que maa ngi dégg ñu naan artisanat du compétence trans mais elle est transversale elle est transversale foo dem dangay soxla artisan donc on a contribué développement réew mi mu ngi contribuer ci lutte contre l'immigration clandestine qui contribue contribuer lutte contre la pauvreté qui contribuer l'autonomisation des femmes Nous avons laaj ñu am wax devant les autorités ñu jox la sa donc ñun des artisans dañu war a boole suñu bopp tënku si yi nga xamante ne moom lañ fi institution yi ñuy teg pour artisanat bu ñu ko defee rek je crois que les autorités compétentes dinañ ñu bàyyi xel donc loolu daal laa gis ne démarche boobu ñun ñu ngi siy dox. baax a baax a baax dama ne njiit du mat ñëkk jiite lay mat wala ñoo koy mottali bokk. waaw loolu am na solo artisan yi yéen dégg li monsieur Sène wax. njiit du mat ñi koy jiital ñoom ñooy mat kon donc booloo leen doon benn topp seeni ginnaaw kilifa jàppale leen mais yéen tamit suñu kilifa yi en tant que président asociation Andavar bi nekk ci biir village artisanal bi yéen it fexe leen ngeen gën a toog comme ni ko monsieur seen waxee gën a waxtaan seen biir gën a am complicité ci li ngeen di def parce que kenn ku ci nekk dafa am lu ñu la dénk ci milieu bi fii ngay tàmbalee fii ngay yem am na solo kenn ku ci nekk xam fii laay tàmbalee fii laay yem bu ma yegsee fii kii laay jox moom mu yeggaleel kële kooku jël kële jox kële loolu tamit ñu ngi leen koy dolli ngeen bàyyi xel ginnaaw ji loolu ma ñëwaat tuuti nag ci sama bàjjen sàcc <laughs> bu rafet bi macha allah jigéen mooy yaay jigéen mooy société te àdduna dañu ne sans jigéen ñi dara mënul dem toujours derrière un grand homme il y une grande dame kon jigéen ñi nañu seerewaat seen ceinture takkaat dollu delluwaat doon ay ma soxna maam jaara dolluwaat doon ay maam faa wàddu wele ndax tey liggéey boo gis si kër rek tey bu réussir jigéen moo ko réussir amaana nag su doom baaxee doomu ñëpp lay doon kon yal na yàlla barkeel ñëpp waaye tey bu safaan amee doomu wejuram rek rawatina bu jigéen bi kon dañuy delluwaat ci li ñu moom muy consommons local jigéen ñi ngeen delluwaat ci li ko mag ñi daan defee ndax bu njëkk mag ñi dañu daan dem jël li nga xamante ne moo di nokkas original di ko jox suñu njaboot gi ñuy màgg te duñu feebar tey dañu doon jël buy bi nga xamante ne antibiotique la macha allah di ko xoojal njaboot gi ñu di ko naan kon nañu delluwaat soluwaat ci yëre yu rafet yi ndax tey bu ñu nawee suñu jigéen ñi tey ku mel ni Aline Sitoé Diatta tey suñu nawee jigéen ñi nga xamante ne ay rayukaay lañ dañu dellu ci yëre bu jot dañu dellu woon ci li ñu moom nañu bàyyi li nga xamante ne moom la ñuy jëggaani ci biti waaye comme ni ñu ko waxee tonton Sène lépp looy def da nga koy def ñun nit métier bi ñu yor mu di tailleur bi mu di transformation bi mu di coiffeuse bi dañu delluwaat ci li nga xamante ne tey ku ñu ca fekk du ñu yedd ndax doone lii laa doon tey carte bi nga xamante ne mooy suñu carte artisan tey mooy firndeel que ne ñun ay artisan lañ kon tey ñun tamit tonton Sène yéen ñi nga xamante ne yor ngeen wàll bi ak président Maguette lii war nañ ci mën a taxawaat parce que tamit artisan la artisan la mbuba woo mbubum artisan doxe doxum artisan te doo artisan tamit loolu war ngeen ñu ci mën a jàppalewaat bu baax a baax a baax di solaat yére yi tailleur yaa ngi ñëw macha allah góor ñi ak jigéen ñi bàyyi ñu benn yoon mu dem kon di waxaat rek lépp luñ ciy def man moom sama kàddu dama koy delloo rek ci consommation local delluwaat ci aar yi comme ni mu ko waxee tonton Sène booy ñëw artisan yi ñoo lay indi sooy demit artisan yi ñoo lay gunge Karim artisan yi ñoo fi nekk commençant que que ñun artisan yi képp koo xamante ne artisan nga soo duggee sa kër

yet bi yàlla na oyof ndax métier bu doy waar la métier bu difficile la waaye ñu gëm ne ñun ñi seq métier bi rek ñu ni neen la ñoo bokk maam ñoo bokk fi ñu jëm te 100 pour cent risque lañu wax suñ ko gëmee di woowaat nag suñu autorité yi di leen wax ne nit du xeeb boppam nit du xeeb këram lépp lu ngeen di wuti ci biti di ko jëggaani ñu di leen ko tegal ci 30 minutes wala 30 secondes ci xaalis bu weex tal mi ngi fii ndax soo ñëwee ci Galaxy TV dina la ko tegal ba nga doyal te ña ngeen di jëli di leen woo ñuy ñëw gënuñu ñu dàquñu ñu ñu wax gën na fa ñu jànge ñoom fa la ñu jànge kenn ku nekk nag da ngay delloowaat ca la nga moom bu fekkee ne dañu bëgg a tëngeej dem ca kanam nañ ko bàyyee comme niñ ko defee fii jël artisan yi ci biir commencé ko ci njiit yi te buñ ci jógee département tëngeej dinañ xam ne galaxi ñëw na ànd ak président moom Sougou comme ni mu koy waxee si li ci biir artisanat wëri artisan yi ànd ak ñoom ak yeneen télépresse yi nga xamante ne tey moom ñoo nekk biir tëngéej ndax li ñu moom nag dañ cay daal di dem macha allah président moom Sougou euh, di di la jaajëfal yow mi nga xamante ne lii mu ngi sababoo ci yow waaye en fait Galaxy TV euh, dañu jël fas dénk ko xariti fas waaye jëluñu fas dénk ko seen xarit wax la nag waaye déggin la laaj parce que bul bëgg a fas ba dénk ko sa xarit amaana sa xarit amul jotu faswa, wa mën na yak sen digeunte te yow da nga bëgg fas waye kasap non, fas denk ko sab du xol ne non la ndax fas ga daf ko bëgg motax dengke, denk euh fas ki nga xamantene mom fas moko neex muy arbi, bi si nga euh gune si nga nek xale lu góor ba si nga nek pa donc loolu sant yàlla bu baax a baax a baax kon donc bu ñu la dénkee lii ñun sa kilifa dañ koy rafetlu luñ ci mën a jàpp dinañ ci jàpp si ànd ak yow fépp foo ko soxlaa ñu participer ci contribuer ci li nga xamante ne mooy suñu xam-xam ci wàllu artisanat ak li ci biiram may wax ne nag département de Rufisque maa ngi leen di ñaax encore une fois de plus que ngeen jege maanaam chambre de métier yi wala antenne départementale yi ngeen jege leen boo leen jegee dinañ leen orienté ba kenn ku si nekk di nga xam li la warlook artisanat li la war warloog secteur bi ak li la warloog say njiit loolu maa ngi si woo bépp artisan bu nekk si département de Rufisque di en fait di jaajëfal artisan yëpp nag ci sama tur di leen féliciter di leen jaajëfal ndax it li ma ko waxee rek moom lay delluwaat wax ko artisana dafa nekk loo xamante ne dafa bokk ci dundu doomu aadama donc loolu tax ñu leen di jaajëfal di wax ne ah ñu ngi gërëm. ñi nga xamante ne man ak ñoom ñoo bokk plateau bi di si jiital euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, réalisatrice émission bi di Libaas Wade Sougou euh, di si teg monsieur Matar di SG adjoint de de l' association du village artisanal di si teg le chef de centre Maguette Fall di si teg sama jarbaatu bopp di euh, bàjjen di am ngërëm ak cant di am tamit ñaan goo xamante ne ñu ngi koy yëkkati di ko tibb suñu xol yéen ñi nga xamante ne yéen a dese destiné bi damay faral di wax kàddu yi dama koy tëje sama wax Cheikhul Hajj Malik radiyallahu taala anhu dafa daan faral di wax ne sa daraja bu ko sa kilifa xam mu ne sa nay bu ko sa njaboot xam mu ne sa tayal bu ko sa jaamu yàlla xam bu ñu ko waxee nag bu du njaboot bi nga xamante ne moom nga jur yow ndax li nga jiite lépp sa njaboot lañu donc loo am jox leen lu ñu am nga bàyyeeg ñoom waaye daraja boo mënti am tamit xamal ne dafa jóge ci nit ñëw ci yow ñooñee mu jógee ñëw ci yow jox leen seen wàccuwaay di leen déglu ndax it mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla yàgg fekke moo tax te xale bu bëggee yoonam jub day diisoog mag boole jamonoom bu ko defee yoonam dina jub donc encore une fois de plus ñu ngi jaajëfal euh, ADAVAR di association bi nekk ci biir plateau bi ndax ñun en l'occurrence man mii di wax ak yéen bokk sen bokk naa si ñi a juddul parce que maa njëkk a nekk président bi ba tey mu ñëw tabbi sama loxo poulain kooku donc sant yàlla continuité la di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a yor destinée bi di leen ñaanal yàlla yàlla na ngeen yeggalik seen sago salaamaaleykum wa rahmatullah. waa tàggatoo bu dul jeex macha allah lu neex du doy comme ni mu ko waxee rek ñu daal di kontaan ci jàkkaarloo bi nga xamante ne tey ànd nañ ko ak président Mame sugu mu doon présentateur fii ci Galaxy TV si émission bi nga xamante ne mooy li ci biir artisan mu invité woon ñu nag ñu daal di ànd ak suñu kilifa ma kontaan bu baax a baax di ko ñaanal moom suñu yaay doyen seen yàlla na taxawaay bi yàgg mag jar naa bàyyi cim réew waaye di kontaan ci sama nawle sama xarit sama góor màgget moom mi nga xamante ne di ko ñaanal sa yan bi faal yàlla na oyof ndax ndaw bu ko yàlla jiitalee dafay diis lool waaye nag yàlla yàlla mottali sa mébét sa yéene bu déwénee ku yegg si si village artisanal bu Tëngéej sa xol dina sedd di waxaat préfet mu gën a appuyé waat ci gunge bi mu ñu gunge ndax tey suñu xar kanamu kër feeñ na grâce à moom di ko jaajëfal moom it mu di doomu Tëngéej di doomu Jokkul mu doon fierté di waxaat ne Rufisquois yi ak Rufisquoises yi ñu gëm suñu bopp ndax bay si say oom lañ wax kon président mam Sougou di contane ci mbokki téléspectateur Galaxy TV di amane mbégte képp ko xamante rek sa su nek yaa ngi béggee bàjjeen ci émission bi nga xamante tay tey na ci di wax nak samay invité ak samay partisan ma ngi ñëw ci sen kaw di waxat ndaw yi nañu góorgóorlu y a pas de sous-métier dans la vie kon merci beaucoup président mam Sougou. goto bi moom dafa doon tagoto bu tagoto euh franchement. ñu ngi jaajëfal association bi nga xamante ni tey moom moo nekk ci biir plateau bi muy association Adevar franchement gis nañ par rapport ak ci biir village gis nañ ko bu baax a baax euh, comme di remercier tamit ñoom doyen seen bu baax a baax ndax gis naa taxawaay bi ndax franchement depuis ba mu ñëwee ci plateau bi depuis ba mu ñëwee ci village bi ba tey ndax franchement démarche bi ñuy def à chaque fois ñun ñaan ñoo koy ànd te à chaque fois saa yu ma demee bay def benn affaire bu nekkee yoon mën na ma bu nekkee yoon mën na ma ci suuf. ndax franchement maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax ndax franchement gars yi dañu naan carrément Maguette réalisation yi nga def yi nga def fi non Maguette dafa réalisation réalisation doyen seen la ndax franchement nekk na kilifa boo xamante ne à chaque fois moom dañuy teg dans le droit chemin ah, di ko ñaanal nag suñu borom moo xam fu mu bëgg yegg suñu borom yeggale ko fa quoi loolu moom maa ngi ko koy ñaanal bu baax a baax léegi nag di ñëw par rapport ak nga wax dafa nekk tam loo am solo par rapport ak préfet ndax du ñu def dara loo xamante ni tam duñ leen jaajëfal duñ leen remercier préfet ak sous préfet ndax franchement nekk nañ ay nit yoo xamante ni maanaam ci au niveau de Tëngéej non franchement seen taxawaay rafet na trop waaw ndax euh, gis nañ seen taxawaay par rapport ci biir dëkk bi ndax franchement nekk nañ ay nit yoo xamante ne ay nit yoo maanaam yu nit yu yu accessible waaw nit yoo xamante ne à chaque fois heure boo leen soxlaa boo leen boo automatiquement da ngay da ngay jot ci ñoom mi préfet mi sous préfet waa ñoom ñaa ñëpp franchement ñun amuñu seen fay mais li ñuy gën a ñaan mooy ñoom ñu gën a dugal seen loxo li jëm ci secteur artisanat en l'occurrence chambre di régal village artisanal bu Rufisque bi ndax soxla nañ seen jàppale trop ci biir village artisanal bu Rufisque bi waaw waaw foofu daal moom laay moom laay tëjee wax du nuyu kii tamit waa chambre de ci di leen euh, remercier nag bu baax a baax waa chambre de métier bu Dakar ndax franchement mënu wax te te duma leen tudd ndax mun naa ne tamit lépp lu mun a am ci biir artisanal bu Rufisque bi mun naa ne ñoom la parce que man euh, mënu ma jël benn directive sa te ñoom amuñ te ñoom ànduñu ci mun naa ne ñoom ñooy kilifa ñoom ñooy lépp réalisation yi am ci biir village bu Rufisque yëpp franchement waa chambre de métier bu Dakar ñoom ñoo ko waral waaw mun naa ne lépp lu ñuy def ñoom ñooy jox seen digal ñun ñuy door exécuté ñun administration rek la ñuy gérer di leen jaajëfal bu baax a baax foofu noonu laay tëjee samay kàgg. macha allah am na solo. ñu jaay consultant bi kii rek. tàggatoo jërëjëf maam Sougou ay man maa ngi maa ngi gërëm ñëpp. bon di gërëm surtout association Adavar di leen ñaax rek ñu gën a góorlu waaw parce que Maguette chef centre bi mu fi ñëwee léegi nii changement bu bari mu ngi commencé am ndànk-ndànk. kon nak nañu top ci ginaawam jappalé ko pour affaire yi mën jëm kanam parce que liggéeyul bopam dé ñun lay liggéeyal waaw parce que amna ñeñ ñu fi jaaroon ni mu doon ni doxalé doxalewu ko wuñ ko mom nak bu ñëwé doxalé ni bo ñun dañu wara top ci ginaawam jappalé ko waaw ta bayyi wax ji waaw à part lolu waaw macha allah tàggatoo yi amna solo ñu nit amal nañ leen sant ak parce que xamna ni tay loolu tey euh, li xew fii xam ni jot amul gis nañ tamit ak kaay fi am yëpp mais terewul dañ ne liir ci kàttanu yàlla dañ koy def waaw bàyyi lu bari ngir plateau bi ñu leen di ñaanal ni leen yàlla bàyyi sunu kanam ngeen gungañ ba ñu yegg si fii yàlla na leen fi yàlla gën a bàyyi di jëfalaat monsieur Sène sama patron di sama lépp di jaajëfal bàjjen euh, le directeur de centre comme ni ko Ndiaga waxee tey moom bu ñu doon wax ci moom loolu rek émission la. Ah, ñoom dañ koy ñaanal rek yàlla kii ko di ñaanal aussi tamit sama consultant bi di leen wax rek ni leen yéen mbokk yi galaxi Galaxy TV yéen mbokki artisan yi comme ni leen ko waxee woon lañ leen koy waxee waat bon Galaxy dafa ñëw jël pàcc bu nga xam te ne da koo jël ni lii waa artisanat ñoom ñoo ko moom moo xam promotion la moo xam publicité la moo xam plateau la moo xam émission la sa place gars yi pare nañ pour ànd ci ak yow numéro bi nag émission bi boo leen koy seetaan dinañ ko dawal ci suuf boo leen woowee sunuy ndaw rek communiquer ak ñoom dinañ kale loolu yaa xam boo ci bëgg ñu ñëw def ko ak yow surtout rawatina visibilité village artisanal bëgg nañ tey jii galaxi def ci lu am solo bi ci topp nag ñu leen di jox dig daje beneen yoon chambre de métier nag la ñu war a def Dakar <laughs> toog ak ñoom ci kàttanu yàlla ñu ngi leen di tàggu beneen yoon ak seen beneen numéro ak li ci biir artisanat yal na yàlla defal ñëpp am jàmm. Benito